di nuyu équipe bu télévision bi yëpp euh, defoon nañ fi daaw di set avril mm-hmm. waaye daa tombé ak mbas mi moo taxoon ñu ñu daanaka amaluñ ko woon ci ndigalu euh, kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk santé réew mi euh, ci jamonoy couvre-feu sax la ñu fekkoon nga ni daaw moo tax ren daaw amul waaye ren yolomal nañ ko ndax mbas mi kat ba léegi jógu fi waaye ci ndimbalul sunu borom mel na ni dellu na ginnaaw ba ñu ngi am yaakaar ci mu jeex euh, du tu tere nag ñu tenir ci compte ndax lépp loo xam ne ay mesures barrières la danañ ko respecté nit ñi digal naa leen ñu sol ay masque digal naa leen ñuy raxasu boo ko génnee sax gis nga ni ku coin bu nekk def nañ fa fu ñuy raxasoo mm. masque yi euh, jënd naa ci lu bare bare ba ku mel ni Mor Ichar dina ko distribuer ci biir biir biir biir mbooloo mi kon jël nañu ay matuwaay ci wàllu woowu waaye ren woyefal gi tax na euh, ñu ñu ñu xaw ko xaw xaw koo yaatal tuuti boo ko seetloo am nañu sax autorisation nguur gi defal nañ ma autorisation wu def manifestation waaye euh, ci samam xel maa jàpp ni rek duñ la may lépp nga jël lépp bëgguma dajale mbooloo mi may tante noonee ma daan tante nga xam ni day dajale mbooloo tax ma yemale ko ren boo ko seetloo ci biir kër gi léegi la fi commandant gendarmerie bi ñëw ma ne ko moom de xam naa sax euh, liggéey bi dina gën a yomb ndax mel na ni tàntuma ci biti ci biir kër gi laa tànt ngir yemale rek euh, bëgg a sartoo ak euh, li nga xam ni moom la autorité sanitaire yi digle moo tax ci biir kër gi lañu tànt war a amal sunu sunu sunu cant dinañ fi bernde danañ fi danañ fi danañ fi jàng jàng alquran danañ fi jàng xasaay ci Sëriñ noonu ma ko sëriñ Cheikh digale waa kay moom Touba googu nga tudd ñoom du ñu ñëw sax ndax Touba euh, bernde yi nga xam ni moo jëm ci daara yi sëriñ Saliou Mbacké moom sëriñ Cheikh ndax man bu ma nee sëriñ Saliou mooy sëriñ Cheikh daaraam yëpp damaa fas yéene ñu ñu ñu bernde leen ci moo tax nee naa waa Touba yéen bu leen ñëw ci njiitul sëriñ Babacar mbay nee naa leen toog leen Euh, universel Assane Fall Dia ak universel Ousmane Fall saar ñoom danañu féete foofa ngir mën a bernde daara yi ndax cant gi kat bu leen fàtte ni yëla ji mooy bernde moo ci ëpp solo ren di bernde te loolu mën nañ koo def fu nekk waaye bu weesoo foofa euh, fii euh, danañ ko fi def talibé yi dinañ ñëw ay buñ dana ñu sëriñ bi sutural dana ñu samonté ak loolu ngay bañ ñu ba du fi am waaw yëg-yëg bi nak ah loolu lay mom ñun on fait que perpétuer le euh, manam ma ngi wax sax ay bato wolof manam dañuy ñun dañ fay nekk rek ngir wëyele liggéey bi nga xamné mom la fi sëriñ bi baax ñun fentunu dara ñun euh, dañu fee ne rek sunu borom da dogal rek ñu ne waaye nun dañ fay fekk liggéey boo xam ne euh, kilifa gi daf koo liggéey suñu jàmbaar joo ji sunu yaakaar joo ji danoo fekk mu ànd ak sang bu tedd ba sëriñ tubaa sëriñ Saliou dajeem boobee mu dajeeg moom may ko mayam yu rëy yii ñuy wax ci liggéey boobu rek la ñu ne di ci barkeelu waaye nun sunu yoon newu ca ndax nun dañ caa danoo xamul lu mu tëddee waaw li fi nekkee daal mooy fexe daal liggéey bi ñu dëgëral ko ñoŋal ko seet lu koy wéyale lu koy jëme kanam ànd kook bokki taalibe yi loolu daal mooy yëg-yëg bi